Monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre émission l'homme de la semaine avec partenaire avec Dakar Midi et Wassare TV euh, tey nañu fi dala benn ndaanaan muy Laye Ananas xam ngeen ko à chaque fois euh, min ngeen ko si TV ak lii di Dakar Midi Laye salaamaaleykum ñu ngi lay nuyu. maaleykum salaam nuyu naa leen waa Tassare ak Dakar Midi. waa Wassare. waa Wassare Wassare Tassare c'est chose. waaw d'accord waaw ñu ngi leen di vraiment remercier ci effort bi ngeen def ñëw fi. Mhm. ñu ci am mbégte vraiment pour partager information bi ñu leen bëgg a informer. Mhm. on est ici avec euh, Pecha. C'est Pecha, Pecha, comment tu vas? Euh, moi, je vais bien. Merci. Welcome to Sénégal. Merci beaucoup. Alors, Pecha, on vous laisse, on, on vous laisse vous présenter. Um, Je suis Petya Stoykova de Bulgarie. J'habite dans la ville de Burgas. Ça, c'est une très belle ville euh, au bord de la mer Noire. Et moi, j'aime beaucoup l'Afrique parce que euh, j'ai un petit peu d'expérience à travailler avec euh, les artistes qui sont les, les artistes africains. Et Après, moi, j'ai organisé un festival mm -hmm. des cultures africaines dans mon, mon ville. Mm -hmm. euh, le festival s'appelle Le Jour d'Afrique à Bulgarie. Mm -hmm. Et il, il présente euh, culture africaine, danse, musique. Euh, on fait différentes tâches de danse et euh, et marché aussi, African Marché. Et cette année, nous allons faire une collaboration avec mm-hmm. euh, les Lions, euh, les Lions et Mr. Mm-hmm. Ananas. notre plan est de faire un spectacle ensemble. Et, et d'une façon mixte, mm-hmm. euh, notre culture entre culture bulgare et mm-hmm. culture sénégalaise. Est-ce que c'est la première fois que, que, vous venez au Sénégal Non, c'est la seconde fois. Mm-hmm. J'ai été ici 20 ans en avant ah ouais. euh, par un programme de l'UNESCO. Mm-hmm. Et j'ai travaillé avec euh, les euh, jeunes danseurs, euh, Tobab Dialao, Sobobade. J'ai resté deux mois et demi ici et c'est quand c'est le temps quand mon cœur est connecter avec euh, cette pays. Et comment, comment vous, vous, trouvez la culture sénégalaise Moi, j'aime beaucoup cette culture. J'aime beaucoup la musique. Euh, et les danses, euh, pour, pour moi, sont formidables. Mm -hmm. alors dañuy delluwaat si kii di Laye Ananas euh, Laye tey jii euh, gis nañ ko nga ànd ak benn partenariat. Mm-hmm. est-ce que mu ñu expliquer partenariat bi lu mu demee tey. waaw pourtant sama sama. ci mois de décembre bi def naa benn conférence de presse doon présenter collaboration bu ma am ak moom ak yeneen partenaires européens. Mhm. bon moom nag moo moo mujjee ñëw. Mhm. donc ñi am euh, collaboration ci wàllu culture échange. entre Sénégal ak Bulgarie. Mhm. donc man demoon na dëkkam bu ñu demee ñu wax ci nan lañ mën a def pour boole ñaari culture Sénégal ak Bulgarie. pour aussi créer relation entre euh, ñaari population yi donc bu ñu waxtaanee ba juboo mu def benn demande application ci gouvernement am pour financement financement boobu nag dafa génn léegi nag festival bi nag dafa nekk en cours moo waraloon mu ñëw nag doon fësal information bi quoi ba aussi euh, profito aussi seetaanaale Lions of Africa. Mhm. donc looloo waral teewaayam fii tey. donc euh, mu nekk événement boo xam ne moom mi ngi koy def bientôt yàgg na daal mi ngi koy def ci dëkkam. Mhm. représenter culture africaine foofu. léegi nag bi pa festival bi dafa invité diplomate yu bari. Mhm. bëggoon nag affaire bi jël beneen empleur moo waral mu. collaboré ak Lions of Africa vraiment wane ne moom mi ngi représenté culture africaine mais foog mu liggéey des des partenaires africains yoo xam ne dañuy yëkkati niveau bi mu nekk quoi moo waral suñu collaboration man ak moom est-ce que mën nañu wax festival bi fan lay amee Dakar lay amee wala fii di Bourgari non ñoom ñun am nañu événement fii ak ñoom euh, mois de euh, euh, juin juin juillet juin juillet am nañu benn tournée fii bu ñuy def mais moom bosom bi mars la. mais c'est mois de mais ou bien mars. mai de mai Sénégal ou bien au Bulgarie. Euh, Bulgarie mais la. waaw donc euh, loolu nag moo waral tey jii ñuy wax ci euh, projet bi quoi. donc bëri na lépp loo xam na nii. média bi wax na ko. waa Dekram dañ koy suivre. donc message bi daal. ñaari partenaires yu daje la di taxawal benn kuréel ci ñaari dëkk léegi nag moo waral te ji mu déplacé wu ñoom comme man maa njëkk a déplacé wu man bi may déplacé Norvège laa jóge fekki ko ñu waxtaan ci def na léegi trois ans this is three years now since I was in uh, Bungas ah, waaw def na trois ans ma dem fa léegi nag euh, yàlla def na projet bi taxaw na moo waral mu ñëw fii pour ñu fësal ko daal. Mhm. alors Pitié pourquoi ce partenariat avec Laye. pourquoi ce partenariat. Why is our partner? Ah, okay. Our collaboration. <laughs> oh, the collaboration. Euh, cette collaboration c'est euh, c'est fait parce que moi je suis très euh, impressed, très impressed, impressé. Progression. Euh, moi, j'aime beaucoup leur travail mm -hmm. et je pense que les compagnies, les Lions, c'est très bonne compagnie et pour, pour Bulgarie, on était très bien euh, euh, à voir euh, et regarde quelque chose comme ça. Parce qu'à Bulgarie, il n'y a pas beaucoup de euh, spectacles comme ça et la culture africaine, c'est pas beaucoup. C'est parfois tu peux regarder quelque chose sur les internet ou sur la TV, mais euh, les contacts qui vivent, c'est très important et très riche. Et c'est pourquoi moi, je veux vous amener cette euh, um, groupe Bulgarie parce que Bulgare peut euh, sentir votre culture parce que c'est que j'aime. Mm <laughs> bien aussi, moi j'ai beaucoup de, des amis ici, qui, beaucoup des artistes qui euh, avec moi en différents pro projets. pour moi, cette collaboration est importante parce que Je l'ai vu comme un euh, commencement euh, de quelque chose de plus grand. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux cultures, entre les cultures euh, bourg bulgariennes et, et la, culture sénégalaise Can you can you translate for me? Uh, there's a difference between our culture. E, oui, bien sûr. Oui, nous sommes très différents, mais um, notre culture et votre culture sont très riches. Mhm. Bulgarie est un pays qui est très um, ancien, mhm. ancien. Mhm. Et uh, je pense qu'il um, y a quelque chose qui est um, um, commun commun between the ñaari wa mu ne ñaari culture dañoo dafa am euh, euh, nu koy waxati dañu nduroo quoi suñu ñaari culture dañoo euh, dafa am lien quoi waaw Yeah. Par exemple, notre musique, euh, dans notre musique, il y a beaucoup de ch chants qui sont très euh, deep, très forts. Très fort. euh, même comme ici, mm -hmm. je pense qu'ils euh, ils, ils, ils, sont liés. Oui, ils, ils sont liés. Ils sont liés, oui. C'est comme moi, je veux ça, ces connexions. Mm -hmm. Et quels sont les projets de cette collaboration Qui sont pour Les projets. Les projets. Ouais. Euh, what is the project euh, euh, Le projet, comme ça, nous allons faire un spectacle ensemble avec euh, musique bulgare et musique africaine, mm -hmm. tous comme ça, ouais. ensemble. Et euh, aussi, les compagnies, on va présenter leur euh, spectacle. et, aussi, nous allons faire un stage de danse. Mm -hmm. Et c'est comme ça, c'est le jour d'Afrique-Bulgarie. Mm -hmm. alors laay ni moom boo déggee si ay kàddoom peut-être am na benn benn journée boo xam ne koy waajal euh, muy Day of Africa festival Bulgarie. Mm-hmm. est-ce que moo euh, lu waral lool lu waral festival boobu. waaw festival boobu moom moo koy euh, organiser chaque année ci dëkkam. bon année bii nag xam nga moom culture africaine daf koy représenter foofu donc moom dafa gis ne. at bu jot a daan invité ay quelques artistes sénégalais mais c'est la première fois mu invité groupe bu mag muy ñun quoi te bii pas li tax mu def ko parce que dafa invité ambassadeurs yi nekk ci def bi yëpp donc dafa am beneen niveau bu mu egg léegi nag qualité de spectacle bi moo waral mu collaborer ak man pour vraiment ñu yéegal niveau bi ci ci beneen niveau parce que invité ay ay personnalité ba pare wala leen doo programme bu riche mhm. loolu baaxul ci sa marketing mhm. te aussi subvention bu mu bind moom man moom daf ko bind may mais man foog ma signé ñu ñaar ñoo ko signé ndox parce que dafa demandé aide ci indi indi sama groupe quoi mhm. donc léegi man état dañ ko laaj na ko nan moom naa wane wane preuve yi quoi donc lettre bonte bi mu ko bindee man il a il faut ma signer ak sama cachet pour subvention boobu mën a génn léegi bu mu génnee nag moo waral mu ñëw nag pour fësal ko quoi voilà léegi aussi tamit Euh, wax ak sunu autorité yi ba pare aussi informer autorité am que aide bi ñu ma jox. fii la dugg quoi waaw waaw pour leeral quoi xam nga boo jotee observation il faut nga leeral ko sinon corruption lay nduru quoi comprends nga ba pare aussi dafa ñëw pour seetaan suñu ay prestations. parce que souvent en vidéo la ñuy gis mais bii pas demee day ñëw seetaan sunu sunu liggéey quoi waaw. tey Layana ah, ña la si àndal est-ce que da si àndal maanaam euh, fecckatu sénégalais yi wala wala sénégalais yi euh, wala moom mooy choisir ku mu neex. wala da ngay demaat beneen dëkk. non non sama compagnie. Mhm. sama compagnie équipe la boo xam ne société la boo xam ne. bon existé na yàgg na. am ça veut dire que waaw man ma man sama surnom la rek mais group bi bi ngi tudd Lions of Africa. Lions of Africa les Lions d'Afrique. les Lions d'Afrique. ok groupe la boo xam ne nii ay jeunes talents ñoo ci nekk. bon mënu ma leen di mënu leen expliquer li ñuy liggéey mais li ñuy liggéey c'est international. ñu li ñuy liggéey yëpp c'est national et international donc. Euh,

Euh, damay représenter Sénégal 100 pour cent culture sénégalaise lay représenter. am na loo xam ne ñu ngi koy doxal bon ñu ci bari Sénégal gis ñu parce que fii li ñuy gis souvent moderne la ñuy gis ak traditionnel mais ñun on est typiquement traditionnel. donc euh, société euh, sama sama compagnie la Lions of Africa. ñoom moom euh, nekkul ñoo xam ne nii ñëw rek ma wër di sélectionné. équipe la boo xam ne nii ñu ngi fi di entraîner pendant des années. léegi su o wax nga ko sànq équipe la boo xam ne maanaam commencé di entraîner depuis des années. Euh, ça veut dire que yaa ngi formé kon. waaw maa leen formé maa leen formé mais ay nit yu am talent la ñu xam ne euh, nit même bu amee talent sax gisoo même équipe nationale ay professionnels ñooy jóge fu nekk mais dañ leen di am wutal entraîneur mu coaché leen xam nga noonu la affaire bi demee ko léegi choix nu mu demee choix bi la doon demee. choix bi mais ñoom ñëpp nag ci ay audition la leen jël. man kuy bokk ci man foog ñu la. buñ la auditionné après dafa am benn règlement discipline boo xam ne nii. ci compoñ bi la nekk amul euh, lépp lu jëm ci violence ak drogue. beneen laaj lu jëm ci homosexuel euh, beneen loo xam ne daal bokkul ci sunu sunu ay règlement amul fa place. est-ce que maanaam festival day am ay thèmes parce que à chaque fois dañ koy gis à chaque fois boo amee benn festival dañ naan festival bi lii mooy thème bi est-ce que c'est le c'est le même cas. non loolu xam naa moom ñu laaj ko ko quoi. moom moo dina ko mais. ok they they they want to know the the uh, the the meaning of the festival. the meaning. Euh, bon les raisons qui. qui est pour faire le festival, c'est très euh, personnel. Parce que moi, je me sentis connectée avec l'Afrique. J'étais aussi au Kenya deux ans en avant. Et pour moi, c'est très intéressant euh, de présenter cette culture. Euh, moi, je suis une euh, manager, manager culturelle. J'ai fait euh, quelqu'un de festival, un festival pour l'art contemporain, mhm. le festival pour euh, euh, présentation de culture afrique. Et après, moi, je suis un artiste, euh, je suis chorégraphe, chorégraphe. Mhm. Chorégraphiste. Ouais, chorégraphiste. Oui, j'ai une euh, danse compagnie et ce que je fais, présenter les cultures et organiser quelque chose qui est très intéressant pour notre, euh, notre pays, notre vie. Est-ce qu'il y a d'autres pays que tu comptes organiser euh, ce festival, à part le Sénégal Pas encore. Euh, pour maintenant, hum, mm, les artistes qui sont été dans les festivals sont seulement sénégalais. Euh, ah, et une euh, garçon, une euh, homme qui est de Guinée. Sami Kouyaté. Mm, c'est parce que c'est son mon contact contact euh, dans ce moment. Mais moi, je veux um, um, enlarge, ouvre les possibilités, et, euh, um, faire le festival plus grand mhm. et continuer d'inviter euh, les artistes différents, peut-être uh, avec les autres uh, pays africains. Mais pour maintenant, Sénégal, c'est le premier pays que j'étais, que je mets visiter Afrique et ça fait plaisir ça fait plaisir euh, mais pourquoi le choix de de de Line of Africa. pourquoi de. le choix le choix. Euh, parce que euh, les shows qu'il présente c'est très bon. Mm-hmm. Mm -hmm. et très mm, attractif attractif. Et euh, je crois que ça va euh, euh, pour les Bulgares, C'est pourquoi. Euh, quoi ni daal la choisir Sénégal gis nañu nekk yëpp ñu choisir lead line of Africa lu lay def. waaw bon nekk loo xam ne aussi c'est parce que ñun produit bi ñu yor dafa différent par rapport. ak ñeneen ñi quoi man j'aime bien toujours bëgguma man bëgguma compétition man dama bëgg loo xam ne lu lu unique la quoi loo xam ne nii man bëgg naa fu ma dajeek samay nawle ñu xam ne man bokkuma ak ñoom bon man noonu la ma yàlla bindee quoi boo ñaa ko ba sax bu dara génnee ñëpp di ko jënd man du ma ko jënd. man bokkuma ak nit ñi ay goût. da nga bëgg lu spécial. man bëgguma parce que liy génn non man duma genre boobu moo tax fu ma dem ci àddina bi ak groupe nu mu mën ci toll. te loolu di nga ci xam daal ba ci Sénégal fii aussi. Hmm? Euh, euh, xëy na nag bis dama sa ñëw quoi. Mm-hmm. mais ñun ku ñu bokkal si podium. Mm-hmm. waaw di nga xam ne ñii ñii liggéey nañu quoi ñun leneen nag ñu beneen affaire na quoi ñun dañuy ñun dañuy xeex pour drapeau Afrique ak Sénégal jëkkati moo tax qualité de spectacle bi ñu am dafa différent par rapport ak ñeneen ñi quoi. donc loolu moo tax mu choisir ñu te du moom kese ñun saa yu ñun seet bu seetaanee dañuy gis na ñii ak ñeneen ñi parce que Afrique souvent ñu bari dañ koy généraliser ci benn benn benn benn benn ci benn bloc quoi. mais man liggéey naa loo xam ne ak compagnie bi ma yor bokkuñu ci bloc boobu. moo tax fu ñu dem dañuy teg toujours ci kaw. waaw donc looloo waral bon yàgg na du du c'est pas la première fois doon na invité ay yeneen artistes sénégalais mais année bi niveau bi fu mu egg. musu fa àgg musu fa àgg parce que bu invité ay diplomate dëkkam yëpp yëpp. ba pare am si am financement état am. invité ambassadeur africain yi fa nekk ak européens yi. Mhm. donc il faut nga wan leen loo xam ne nii te moom xam nañ ñan la moom avant moom. waa dëkkam at bu jot ñu ngi may fexe pour ma ñëw fa. mais euh, euh, euh, am na dëkk bu ñuy wax seen capitale bi Sofia la tudd. Mhm. am na festival yoo xam ne chaque année. du ma lay wax ne mat na cinq ans. Mhm. at bu jot dañuy invité mais du dem. at bu jot. mais moom sama partenaire jabar la sama jabar moo ñu moo ñu boole. dafa dajeeg sama jabar ci benn benn conférence. sama jabar moo ñu lié. après man ma dem jël vol dem foofu. bu ñu demee def naa presque ci di jours. how long bi been in in in in Boga. one week waaw def naa presque une semaine yoo xam ne nii dafa am te dafa tombé benn ci mairie de ville bi. dama demoon ñoom ñu jël ko en tant que interprète te mairie ville boobu chaque année dañ may invité mais mosuma bëgguloon bokkon sama choix quoi ay Bulgarie mais yàlla def ma dem fa ndeke festival yi may aimé chaque année may duma ma dem ndeke ñooñu ay partenaire bu ñu demee nag ñooñu ñëw ci sama réunion ak ñoom. moo tax bii pas suñu dem fa noonu dañuy dem profito dem ci festival yi ñu doon invité. te daaw ñu fa dem. parce que xam nga dëkk bu mag la mi ngi mel ni Casamance invité la Gambie maanaam mais ñun dañuy suñu dem bii bii pas dañuy profité profité demaale ci ville yi. festival yi ñu doon invité daaw dem quoi. parce que aussi tamit xam nga jóge fii dem ba Bulgarie euh, te amuloo financement te ñun on bu mag la yo voilà donc mais bii paa na yàlla def na moom def na financement bi donc am nañu facilité pour profité képp ku ñu joxoon sunu parole dañ ñëw ñëw ñu ñu profité visité waat leen quoi. alors madame on a parlé déjà des des euh, des projets maintenant on va parler des perspectives quelles sont les les perspectives de cette euh, Day of Africa festival Bulgarie. Euh, les perspectives sont pour faire le festival plus grand et inviter beaucoup d'autres pays de euh, l'Afrique. Mhm. Et peut-être on fait une euh, grande collaboration avec um, uh, beaucoup d'organisations culturelles de différents pays en Europe. Parce que um, uh, mon, organisation s'appelle Dance Bulgaria, Dance BG. Euh, quand je fais quelqu'un à quelque chose, euh, mon, mes partenaires, partenaires, mes partenaires, euh, ouais. euh, nous peut, nous peut partager ce que nous fait mhm. et, et, et comme ça notre euh, event, event, event on, on peut on peut être plus grand et plus riche. C'est la possibilité. Avec le festival, euh, nous allons contacter avec autres, euh, autres organisations culturelles dans l'Europe. Et peut-être euh, ça nous aider pour um, enlarge mm-hmm. notre travail, make it bigger. Mm-hmm. Vous me comprenez mon français? Ouais, ouais, ouais, <laughs> c'est pas grave c'est pas grave on comprend. laay même question bi laa leen di boole. maintenant après événement boobu mu nekk Day of Africa festival Bulgarie. Hmm. lan mooy doon perspective yi. bon moom wax na ko sànq xam naa da nga ci bàyyiwul xel. c'était moom dafa nekk organisation privée. mais daf ko bëgg a yaatal quoi. parce que man dem naa ba foofu euh, école bu bu mag la ko e, gouvernement bi jox état bi quoi. bon presque jeunes yu bari ci école am la ñu formé woo ay break danseur bari na artistes yu bari yoo xam ne ci école am nekk mais moom dafa bëgg a affaire bi vraiment dépassé fu mu nekk nii parce que xam nga niveau bi mu nekk noonu. niveau la boo xam ne ne niveau national la mais daf ko bëgg a def niveau international. te moom gis na sunu liggéey moom ci boppam boole na ma ak yeneen partenaire européen moom ay ay collègues yoo xam ne ñii ci yeneen dëkk yi. d'ailleurs sax mi ngi profité ñi nga xam ne ñoo wër mi ngi leen di informer ko ñoom ñun ñu ngi ñëw pour bu ñu paree ci ñoom ci moom dem ci ñeneen yi donc li nga xam ne daal moo ko tax a jóg mooy yaatal affaire bi pour moom niveau bi mu nekk vraiment gars yi reconnaître li mu def te loolu mu ngi ko bëgg a yaatalee ci ay événement festivalam bi parce que moom année bi yëpp lay liggéey mais dafa bëgg a benn événement boo xam ne nii état bi su leen laajatee subvention ñu ñu jox ko li mu mérité quoi parce que des fois nga laajtee ñu jox la loo xam ne nii du la jëriñ dara. te moom loolu ci loolu lay dund quoi. donc yaatal affaire bi nag pour mu jël ampleur boobu moo waral bii paa mu mu woo ñun quoi. Mhm. waaw te incha allah gis na liggéey ñu def ci yeneen dëkk yëpp donc euh, lii togg nañ ko presque bientôt trois avant feebar bi def na les quatre ans léegi ñu ngi ko doon togg lii donc euh, année bii nag lay incha allah commencé démarrer quoi. merci beaucoup Laye. merci beaucoup merci beaucoup madame. votre dernier mot. donc euh, sama dernier mo mo maa ngi maa ngi remercier. les artistes euh, sénégalais di leen encourager di leen gën a conseil waat ñu gën a téye parce que affaire ah, ah, métier art bi yombul quoi yombul métti na. te man boo gisee may toujours may wax sama dernier moo ci loolu damaa jaar foofu dama fa jaaroon mais maa ngi leen di conseil ñu bañ a dugg ci lépp loo xam ne lu négatif la lu leen di indil ay handicap. te bu ñu bañ a yàkkamti quoi. parce que soo yàkkamtee di nga def loo xam ne waroo ko def te aar mu yéex mu gaaw day ñëw donc maa ngi leen di ñaan ngeen am patience su suma jeunesse bi chaque jour jeunesse bi ñu ngi gën di dugg ci aar maanaam les artistes sénégalais dañu gën a dafa mel nii dafa am lu ñuy attiré. ñuy ñuy génn ci beneen zone bi di dugg ci milieu art donc artistes yi ñu ngi gën di développé wu comme dëkk bi nag c'est dommage. amuñu aide ci wàll état bi amuñu aide ci wàllu yeneen artistes yi fi artistes yi dund bu métti la nekk parce que amul fii amuñu Sénégal yi fii duñ jàppalante quoi doo gis benn sénégalais artiste bu jàppale beneen moromam loolu moo tax mu métti ci artistes yi fii quoi amul kenn ko jàppale fii kenn comprendre nga état bi ñoom la même chose donc euh, moo tax maa ngi encouragé jeunes yi que mu yéex mu gaaw yàlla dina ñëw quoi Merci. Merci beaucoup, Lai. Merci beaucoup, Madame Pitié. Euh, C'était un plaisir de partager ce avec vous. Maintenant, il est temps de donner du en attendant. Si vous conseillez de manger beaucoup de bananes, c'est Wassari TV et Dakar Midi. Merci. Merci.